ndax Boy Niang mën na daan Modou Lo ndax Modou Lo mën na daan Boy Niang question bu jar a bàyyi xel la ñu dem. jërë ngeen jëf seen analyse du combat diggante Modou Lo ak Boy Niang ni ñu ko defoon ci Modou Lo ak Ama Baldé dañ ko defaat diggante Modou Lo ak Boy Niang mu nekk combat bu jafe euh, dañ koy commencé nag ci Boy Niang jox Modou Lo 80 pour cent mën na daan Boy ñaa Boy Niang jox ko 20 pour cent mën na daan Modou lan moo tax euh, bu ngeen déglu di ngeen comprendre bu baax a baax donte sax am ñu faral Boy Niang am ñu faral Modou Lo waaye nag kuy déglu analyse mi ngi ko dégloo xel mais ñu ko dégloo xol euh, dañ koy commencé ci Boy Niang mi xamante nii jël na Modou Lo ginnaaw bi Modou Lo amee victoire ci Eumeu seen am combat ak euh, amaa balde amaat combat ak Boy Niang ginnaaw bi Boy Niang daanee Balla Gaye 2 jël bu rëy te ku xam Balla Gaye xam ne daan na Modou ñaari yoon bokk na ci euh, trois défaites yi Modou am ñaari Balla Gaye 2 moo ko jox beneen bi kii ñuy wax Bombardier c'est normal ñu daan Modou Lo que ay champion lan Boy Niang nag am na jaar-jaar bu am am solo bi mu jógee ci lool jàpp na ball gay 2 bëri loo ko daan ko ginnaaw ba mu daanee Sa nu gis ne Boy Niang ana fu mu tegoon bëtam mooy roi bi jël na Modou Lo war na bëri ak Modou Lo ku xam Modou Lo xam ne Ama Baldé yàgg na koo topp am na fu mu ko jaarale gis na ne Boy Niang nag wax ji muy wax Modou Lo nekkul lu bees ci Modou Lo que gis nañ ne ñu bëree bëri jaaroon nañ fi Modou Lo dégg na lu nekk ci làmb matoo mbër lu nekk dégg na ko ci làmb waaye teewul mu gëm boppam gis nañ ne amaa Baldé waxoon na ne Modou Lo su ko teeloon gis moom def mille francs ci moom waaye nag 1000 francs yooyu rëccu na ko bu baax a baax parce que su amoon milliard na ko def ci kombaa bi parce que it combat bi mujj na métti ci moom gis na ne nag Boy Niang ñëw na taxaw taxawaay boo xamante nii jaaxal na ñu bëree bëri ñu bëri jàppoon na ne Boy Niang du attaqué Modou Lo benn yoon ndax euh, kii ñuy wax euh, Boy Niang dinaa tàngoom fi ñu ko kii Ama Baldé tàngoom fi ñu ko jaarale kon nag Boy Niang boo taxawee taxawaay bi dina jaaxal ñu bëri premier jàkkaarloo Boy Niang jóge na place am déplacé wu ñëw ba ci Modou waaye nag ay reetaan lañ fa gis digganteem ak Modou Lo deuxième fois bi ba mu déplacé woo ci analyse bi leen def rek bàyyi xel bu baax baax topp leen leen wax bu baax a baax ngeen bàyyi ko xel Modou Lo bi xamante ni Boy Niang ñëw na la mu amoon premier ba amu ko parce que Modou Lo daf ko xeñ boppam ba mu taxawee ci kanamam Modou Lo ba mu ko nee puusal kenn xamul ndax Boy Niang dafa am ko bëggoon laal wala waaye Boy Niang bañ na def ko bimax wan ko ne ko xale nga may xale donte man maa la mag waaye combat bi dama ci wax kenn bàyyi naa la ak yàlla lu doy war nag moo am ci combat bi mooy Boy Niang dafa ñime Modou Lo nu raw na ko Ama Baldé ñime woon ba xam Boy Niang mën na daan Modou loolu question la ba tey ñun ci Boy Niang suñ pare dem ci Modou Lo Boy gis na ne jaar jaaram am na ci ay défaites yoo xamante ni maanaam ah, ña ko daan ñëpp tojatuñ ci làmp Euh, premièrement mi ngi nekk kii ñuy wax Zos daan na ko euh, keneen ki mi ngi nekk euh, Amaneex daan na ko beneen combat bi nag mi ngi ko jël défaite bi mi ngi ko jógee ci tafaatin mu nekk défaite yoo xamante ne mënoon na ko ñàkk encaissé parce que contre Tafatine am na lu nekk wax na ko tafaatin waaye teew ba mu ñëw ci géew ba dese naa dëggal boppam comme ni mu ko waree woon. bu ñëwee ci Modou Lo nag ñu gis ne Modou wax dëgg fa dëgg yàlla bu dee dëgg rek moo neex yàlla Modou da di jàmbaar boo xamante ni ci ay moromam ci ay naataangoom nekk na koo xamante ni lam ñëwee ci entraînement ñam maaseel jamono ko ci ñime amu ci bari nag ay moromam def na jaloore ñaari nit ñoo ko daan kan ak moo ko daan mooy Bombardier moo ko daan Modou Lo moo ko njëkk a daan kii euh, Balla Gaye moo ko njëkk daan bi ko Balla Gaye daanee mu ñëw kii daan ko Bombardier bi ko Bombardier daanee Balla Gaye daanaat ko ci manière bu doy ba mu jógee ci defet boobu nag dafa mel ni euh, dafa ko indil ak njàmbaarte mu daan ci Eumeu Sène dóor ko mu daanu kon tey jii Boy Niang li ñuy wax mooy Boy Niang di fekkoon ne bëgg na xam combat bi tolluwaayam waroon na jege Eumeu seen laaj ko kan mooy Modou Lo mu jege Ama Baldé laaj ko kan mooy Modou Lo waaye Boy Niang dafa mel ni mer la indaat ci combat bi li tax ñu wax leen nag Boy Niang 20 pour cent la am ci combat bi mooy su indee mer ak jéem a faylu waa kon mën na ñàkk combat bi waaye nag bu indee bëree comme premier combat lay bëre diggante ak Modou Lo mi dara xewul woon mën na am victoire ci kaw Modou Modou Lo nag gis nañ ni tax taxawaayam baax na waaye nag euh, ki ñuy wax Boy Niang daf ko ëpp rallonge ba pare xaw ko sàcc doole ci liñ gis waaye nag waxoon nañ ko ci Ama Baldé ne daf ko sàcc doole waaye loo jotul woon feeñ waaye liñ jot a gis mooy Boy Niang dafa xaw a sàcc Modou Lo doole tuuti ndax Boy Niang mën a daan Modou Lo nag mooy question bi parce que gis na ne ñu ñaar seen i bëri bokkul te Modou Lo dee bëri rek la ñuy wax Modou Lo moo dàq bëri Boy Niang loolu moom même suñ ko waxul sax loolu moo ma nekk li am kan moo dàqa xeex xeexul làmb Modou Lo moo dàqa xeex xeex normal booy Niang kan moo gën a caay caay ci bëre Modou Lo kan moo gën a ñime Modou Lo parce que Modou Lo c'est rare ko gis muy daw ay combat waaye Boy Niang parfois bu xaw a métti na xaw a dellu ginnaaw loolu ay analyse yu am am solo yoo xam ne bàyyi na ko ci xel ci làmb ji euh, seet nañ ko ndax Boy ñaar nag dina daan Modou ak ban façon la daane mooy jaaxal ñu bëree bëri comme ni ko waxee ci contre Boy kii Ama Modou Lo nag am na quatre-vingts pour cent pour daan euh, Boy Niang ci ban côté Modou Lo mën na bëre ak Boy Niang mën na ko juumloo parce que Modou Lo moo gën a féete suuf te Modou Lo xeexam moo gën a gaaw Boy Niang waaye Boy Niang kuwam fu mu daal mën a def effet kon loolu combat boo xam te ne ku ne dafa naqari analyse waaye nag ku ne xam na ne Modou loo mooy favori parce que moom mooy roi bi te mu mujjee jóge Pikine daan fa Ama Baldé kon mënoon koo jox keneen ku dul ñu bëri nan jàpp ne nag bu ñu déglu analyse bi doon xaw a far waaye nekkul lu far waaye dafa nekk loo xamante ni lu neexul wax la parce que bu dee bëre su dee dikk rek ñuy wax te yàlla tax mooy Modou Lo mu dàq bëre waaye nag làmb boole na leen doonte palmarès yi bokkut parce que palmarès bu riche Modou kon nag dañuy wax premier gañ képp koo xam ne yàlla jox na ko victoire ñu xam ne moom la yàlla jox victoire waaye nag Boy Niang mérito na pour daan Modou Lo comme ni loo Lo mérito pour daan Boy Niang Boy Niang mën na nekk roi des arènes ndax dina neex waa Pikine nag ak du leen naqari loolu nag xamuñu waaye lu ci mën di am mooy waa Pikine yëpp war na mën a génn pour jàppale Boy Niang mën a jële roi bi ci Modou Lo parce que gis nañ ne Modou Lo lim def waa Pikine neexul waa Pikine waaye nag waa Parcelles est-ce que dinañ d'accord Modou Lo joxe roi bi loolu mooy cool yi loolu la fi indi woon ci analyse képp koo xam ne abonné ko chaîne bi mën nga abonné bés cloche notification te ngay partage di aimé jaajëf